ñu leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Jaxaaw Siin ki ñu fi woon a fans club Boucar Ndour bu Lutte TV vraiment ñu teg mise un million xale yu bare bare bare ñëw nañu fi waaye mbokki Jaxaaw teeru nañu ñu ak climat boo xamante ne climat bu leex la rawatina utee naa climat bi nga xamante ne ñu ngi ko doon daj fële ci Jurbel climat bi macha allah neex na temps bi neex na tàngoor bu taxu koo demee noonu ñu leen di jaajëfal bu baax mbokk di leen wax ni dina leen wan lépp loo xamante ne xew na ci ambiance xew na ci cosaan fii ci Jaxaaw Siin Ibrahima Kaay let's go

Thank you.

zoo technique numéro 2 waaw waaw zoo dugg si na ci làmb ji ma nga noonu ndeysaan daa dugg ci sama xel dem ci Paul Maurice le grand champion diw kanam gi lu weex ndeysaan di léemu ma ngay léemu moomu jee technique sol na dàll ba ndeysaan daanaan la combat bi weesu arène nationale la mu jee bëre diggante ak Albouri ko <laughs> waaye zoo neex na saf na xorom mën naa bëre ndeysaan ma ngay léemu ma ngay cey léemu ñoox na ci du mbax bi ñoox na ci biir ba daw na <laughs> làmb gi Joe Technique daw na ndeysaan Joe Technique daw na dem naa ci xibla bi demaat na ci beneen xibla bi ndeysaan gis ngeen ko dawati na zoo daal zoo la <laughs> zoo technique daal zoo zoo la ma ngay wër ma ngay wër ndeysaan ma ngay léemu fu la baax na ci loo gis ndeysaan ma nga noonu

Papa. Yeah. monument Ngakhné Ndiaye a fad monument Roffana monument Ndianda Zak Thank you. monsieur le maire noonu monsieur le maire Badara Ndiaye <laughs> ndeysaan wu léegi noonu cey lam ndeysaan monsieur le maire Badara Ndiaye ma noonu ànd ak délégation ndeysaan gis ku mel ni Adama Diouf a noonu ànd naag jigéenam ndeysaan délégation baa ngi noonu <laughs> cey lamb lamb ngi nii ndeysaan monsieur le maire Badara Ndiaye monsieur le maire a ngi noonu ma nga noonu ndeysaan ànd ak ay nitam ànd ak ay xaritam ànd ak ay am di jàmm Boucar yëkkati na loxo bi ndeysaan Thank you. Thank you. Oh, la di la jaajëfal ci bis bi nga xamante ne tey tuddee nañu la ko ba ban yëg-yëg nga ci am. Ah, xanaa mbégte rek parce que nit ki am bësam tuddee la ko mënoo ko fay eh, mbégte rek ngay am waaye nag eh, sama mbégte boobu dama koy bokk sama xarit sama rak sama collègue maire commune de jaxaw ndax ku wax Diakhao wax dëkk cosaan ku wax Diakhao wax dëkk histoire ku wax jaxaaw it wax dëkk teraanga kon suñu jëlee dëkk cosaan jël dëkku histoire jël dëkku teranga organiser fi làmb tuddee ma ko du ma def dara lu dul kontaan waaye di gërëm di sant euh, Boucar Ndour bi nga xam ne ñooñu ko jagleel waa Lutte TV di naan euh, gis nañ yéene bi mu am ci ñun euh, yéene bi mu am ci commune Thiaré gi ak commune Jaxaaw ak siin gi mu nekk xale boo xam ne mu ngi def lu rëy ci làmb gi donc mu nekk suñu fierté ñun waa siin ñun waa commune caari Ndial gi donc xele bu nekkee ci yoon euh, di góorgóorlu ngeen bokk da ngay lépp lu muy def da nga ciy jàpp kon looloo tax biñ ma ne euh, dañ may sargal euh, amul benn kii bu ma ciy def lu dul nangu ko waaye tamit dinaa sant cabinet maire commune Thiaré Ndialgui yëpp ak tout le conseil municipal ak toute la population de Thiaré Ndialgui di sant sama xarit suma jigéen sama naataango xat Thiam bi nga xamante ne moom mooy euh, nekk ci commission euh, communication bu Matar Ba euh, nekk fa chargé de mission ministère ak ci maire commune de Fatick bi donc ñoo ñëpp takkaayu ànd ak man ci sama délégation ñëw fii donc yëg-yëg bu rëy laa am nga ñëw fi tamit fekk fi ay mbër yoo xam ne wax dëgg fa la ay xale yu ñu war a jàppale la ndax euh, gëm nañ lu ñuy def euh, ñu ngi euh, wane ne góor soo nekkee ci ndaw da dem liggéey lii nag bokk na ci seen culture waaye tamit muy sport boo xam ne c'est le sport national du Sénégal donc xale yi ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan nag le remporté première édition bi jërëjëf waaw. kilifa gi maa ngi lay nuyu baax di la si. Hmm? baax. waaw ah, maa ngi lay fay. Thierno Silla. maa ànd ak maire wala da ngaa ñëw ci délégation bi. wala da ngaa ñëw ngir en tant que la. waaw man ñëw naa fi en tant que maire man may maire de Diakhao mais dama fi ñëw aussi euh, sur invitation de Biram euh, comment dire Boucar Ndour moom mi organiser bés bi. waaw man la may rajo Diakhao. mais tey nan nga gisee làmb ji nga xamante ni tuddee nañ ko sa maire euh, Badara Ndiaye yaakaar naa ni yéen ñëpp ngeen nekk benn euh, ban yëg-yëg nga ci am. waaw am naa ci mbégte trop tey dalal fii euh, sama sama mag Badara Ndiaye en tant que collègue maire ñu ñëw tase fii ci làmb ji tey di suñu rak di ko organiser di Boucar Ndour tey ñu am ci mbégte bu rëy parce fii nii cosaanu. fii ay séeréer lañ te suñu cosaan lamb la donc euh, bu ñu teewee bés yu mel nii vraiment dañ ci am te am ci sawarte. ngay wax ñi nga xamante ne actuellement fi mu toll nii dañoo gën a bëgg làmb rawatina dëkk yi nga xamante ne xam nañ leen ci làmb comme mu mel ni jaxaw ak li ko wër ak dëkk bi yëpp lan nga leen di gën a wax lan ngay gën a wax dëkk bi ñi nga xamante ne dañoo gën a bëgg làmb gën ko valoriser lan nga leen wax. waaw parce que présentement lamb bi commencé dee eh, li ñu leen di wax rek mooy ñu gën a booloo sàmm suñu cosaan sàmm suñu aada parce que amuñu dara lu dul lamb donc euh, nit da ngay fonk sa cosaan da ngay sàmm sa aada ba nga xamee ne ni tey li fi maam yi bàyyi woon ñu continuer di ko valoriser ñu continuer di ko pérenniser loolu laa jërëjëf merci beaucoup. maman saa ñëw ngeen sama dëkk dëkk cosaan maa ngi sant bu baax monsieur le ministre dafa voyagé waaw daa voyagé maa ngi sant bu baax. sañ naa laa laaj lan la moo la indi tey fii ci làmb. Ah, li ko waral mooy dama ànd ak sama frère monsieur le maire de Thiaré Ndial gi Badara Ndiaye di doomi Sine dëkk Fatick dëkk Jaxaaw man it ma dëkk presque Jaxaaw bokk Jaxaaw nekk chargé de mission au ministère des sports mu doon ñetti tànk. ndax ku ne xam nga ne culture lamb da cee bokk lamb di cosaan ak aada suma ministre bëgg ko waaye sama rakk ji Badara nga xam ne Bukar Diouf ak estafam tuddee ko di ko sargal fii ci Jaxaaw première édition drapeau Badara war naa mun a ne ku ne Jaxaaw nag ne lamb ku ne Siin ne lamb taxaaw waaye Dakar dëkki maam Maye Koor Diouf mi doon ànd ak suma maam Sangle Faye ñu dend ak monsieur le maire de Diakhao ñu koy sant di ko gërëm waaye di gërëm son excellence le président Macky Sall mi nga xam ne lii lépp moo ko waral lii lépp moo ko waral ba ma mun a ànd ak le ministre des sports waaye tamit ba ma mun a ànd ak le maire de Thiaré Dialga Badara Ndiaye régisseur des bourses. ministre moom ñëpp dañ koo bàkkee ministre làmb ji te ñun dañ a jël sport ministre des sports waaye ministre làmb ji bu dugg ci làmb ñu gis fi ko làmb ji teg cër gi ko làmb ji jox. ni ñu buggee Matar Ba loolu lan mooy secret. loolu yëpp sant yàlla puisque xam nga son excellence le président mark Sall da koo wóolu rek euh, ñu dem élection locale le 14 juillet 2014 mu def ko ministre des sports Matar Ba dëkk jaxaaw bii juddoo fi yaroo fi nekkoon ci làmb bi waaye nekkoon ci football bi te ku ne xam nga ne Matar Ba c'est le 23e ministre depuis l'indépendance comme ni ma yoree di ko et c'est l'un bi mu ñëwee dafa defaraat sport waaye bi mu ñëwee teg na làmb bi ci raay bi ànd ak l'ancien président CNG le docteur Alioune Sarr ba Bira Sène ñëw remplacer ko Matar ba doon kenn koo xam ne ndax xam nga ne fi mu ne ne actuellement ñu ngi ci tournée bi ak CAN bi nga xam ne musta am Sénégal gagné nañ Coupe d'Afrique actuellement ñu ngi diggante Thiès Tivaouane Louga ak saint man làmb bi tax mënuma cee dem waaw. ñëw sama maman maa lay jàpp. merci beaucoup. ma ñëw fekk la fii ci Jaxaaw Siin làmb bi nga xamante ne Bokar bu Lutte TV moo ko organisé lan lan lan lan la fi Adama Diouf di def. non xam nga man boo fekkee Jaxaaw Siin moom loolu jot a laaj ci moom boo fekkee Jaxaaw Siin may nuyu ñëpp nag di wuli bi nga xam ne Mbor la tey woote wu ne doomu ndeyu Bokar la doomu ndey dañ koy jëfee ndax Bokar suñu doomu ndey la ñun ñëpp mel ni yéen. ñu organiser yéen dañ leen di sonal ndax xaaju guddi sax da ngeen di jóg pour ut ñu information boo xam ne day doxal lamb kon nag bu kar bu nekkee may nuyu wàllu kii bu baax a baax a baax di nuyu patron am boos vraiment bu taxawee di tëgg lamb fi jaxaw ma dëkk jaxaw kenn waruma cee woo dama war a woote kay ñu ñëw pour dooleel Boucar loolu bu amee nag rawatina tuddee ko Badara Ndiaye nga xam ne mooy maire Thiaré vraiment di def lu baax di wax lu baax yàlla dogal ko mu jëmoon jongante ba yàlla dogal mu gagné xam nga boo demee ci xare ba gagné dañ la war a defal sargal ñu koy sargal fii xam nga boo sargal loo xam ne ba jëlee ko sargal dafa nekk loo xam ne lu jaatu la lu war la ba rawatina bukar bi nga xam ne suñu doomu ne la suñu lépp la gis nga may def bi di waat naa ne ku ma ci ba ma jël mais ku ma ba wax jaxaaw ma jël jéeli ku ma ba wax wi jaxaaw man damay jël ba deyal fii ma maay woote mais man kenn woo ma fii ndax jaxaaw laa gën. lan lay ñëwee ba tey jaxaaw wuli xam nga wuli bu ñëwee fii dañ ko war a dalal tatagal ko moom juuf la juuf la sant nag suma doom baay mais fii gis nga tàkk lay def nepp mut ndax lii nii boo ko waxoon lu ma jaaxal ci wuli duma ko sànni xeer tey ndax suma doomu ndey laa duma ko sànni xeer ndax ñëw na dooleel Bukar te moom sax ku lay naan Bokar suma doomu ndey la boo ko wala ci combat bi sax ñu ngi doon takkal ay Bokar ne ko Bokar day <laughs> mais Badara Ndiaye jël war ci wóor daan mooy sargal doo sargal mu soo sargal leen gaynde ngay sargal te Badara Ndiaye gaynde la bu dugg te rek xam nga ne gaay bu ko lu ko tuddee affaire bi rëccu ko mënu maa ñëw fii nag te gërëm ma Ablaye Daas mu dëkk fii rek papay Aboubacar Ndour ndax ba may xam autorité bu ma njëkk a xam ci àdduna ministre Ablaye Ndour laa njëkk a xam ci sama si autorité te ba léegi bàyyi ma vraiment kuy baax di nuyu ay doomam di nuyu jabaram di di nuyu nag eh, le grand champion Carthage nga xam ne moom mooy garde kooram nekk suma rak di bëre mais rawatina wuli daal vraiment kontaan naa ci moom trop ak su mu def nii dem wuy si Bukar ndax nag woote ñu wuy si la dafa neex te Bukar wax dëgg ñëpp a ko war a ndax ku yaru la ku am teggin la te ñaar yii mënoo ko am te amoo ko alal boo amee alal te yaruwoo sa alal danaax saay kontaan naa jiili ci kaw ci kanam ci lu baax kontaan naa Tombe maa ngi lay nuyu bu baax di la si. waaw maa ngi laa fay nan laay wax. maa ngi lay fay wasaar. waaw maa ngi lay fay. waaw maa ngi am jàmm bu wér. tey nag bis ciy décoré ban yëg-yëg nga ci am. waaw am naa ci yëg-yëg bu baax. waaw ndax euh, ku lay décoré fi nga dekk rek da nawloo waaw ndax li ma def ci làmb yëpp jaxaw bi laa ko commencé waaw fi fi may décoré fii fii. ñoom xam nañu kan mooy tombé ndax samay samay prof yi ma def yëpp fii laa ko njege bon donc bu ko defee rek wax dëgg fa la dama cee am plaisir waaw kontaan bi moom xaw na am naa fu mu tàmbalee mais xaw ma fan la yem waaw wax dëgg fa lu mu def xamul lu mu toll ndax boo xoolee ne sama ginnaaw waaw lii di sama président écrit ak samay ñii ngay gis samay ginnaaw yëpp ngay gis noonu sama ñii samay mag lañu ñii samay samay nijaay ñii samay morom ñoo xam ne ñoo ñoo maasandoo ak ñi nga xam ne nag mënuñoo toog fii bon donc bu demee loolu rek euh, delloo na pot ñu ci ndaal ba waaw loolu loolu mën naa la wax ne daal am naa ci mbégte boobu. ñu ñaata combat nga def. ñaata combat mun nga ñu ko fàttali. maanaam fii wala wala Dakar. Dakar ak fii yëpp li nga jot a bëre ci combat. non non loolu dañ ko mën a xayma mais mënuñu ko wax bu mu jeex. Dakar ñaata fa 15 combat. waaw. ñaata. ñan ak ñan nga bëreel Dakar. waaw bëri na waaw bëri naa ak Massor Diop bëri naa ak euh, Serigne Ndiaye bëri naa ak euh, euh, kii Forman waaw bëri naa ak Dégol Baye Boy Niang bëri na waaw bëri naa ak Batlen Ziki bëri ak Langa Langa na mas maanaam daal bëri na waaw. moo la gën a neex ci sa ndam ci combat Euh, sama combat ak Zallo waaw stade Amitié boobu mooy premier combat buñ koy door a ubbi Amitié pour lamb teg woowu maa ca bone deuxième combat ci diggante Moustapha Gueye ak Mor Fadam ndem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm waaw keroog la ñu bëre deuxième combat combat boobu moom a gën ndax wat bu bees lañ ma defoon ndax booba maay door a jóge ba ñëw waaw ñu bëgg maa def wat bu bees loolu moo wat ci gën a neex waaw combat ba mën nga maa expliquer noo bëreeg Zallo noo ko daanee ak ni ni làmb ja dem. waaw làmb ja moom wax dëgg neex na bon man mën naa la wax ne man du ma niil fii su ma ko waxee fii ñëpp mën nañ ko seede amul kenn ku mën a seede ne tombé daan nii lakk du bëre dóor du bëre simple donc euh, comme ba dañoo ñëw comme ni ma la ko waxee rek bon donc comme ñoom jàpp nañ ne wàcc bu bees la mais fekk man li may def fii xam naa ne deful lu toll noonu. moo tax bi ma ñëwee mayu ma ko mu naan ndox dama ko attaqué rek dal ci kawam làmb ji jeex man sama làmb ju yàgg waaw. actuellement tombé am na ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci loxoom mu lay encadré pour fas yéene leen a def champion. waa am na am na parce que am na école de bi nga xam ne euh, président Modou Diouf bi toog lii moom moo euh, foofu maa koy gérer donc euh, foofu noonu kaw Gourdin fa ne. Oli Gonso Folane Cartas Folane Biram Mbisine Folane bari na mbé yoo xam ne bon boo yoo xam ne ñu leen di yor foofu di leen di tàggat waaw. waaw waaw ñu dala ziar bu wér. décoration non décoration bi moom dama ne la kontaan da laa ci am walaay asim ndax fuñ toll nii sama ancien gulaar yi nekk fii yëpp nga xam ne ñoo doon daje fii ku mel ni ñoom Gor Galange ñoom Layti ñoom Maam Koro Diané. ñoom Baye Niass jaan Diane ñoom El Hadj Ndiokkel ñooñu yëpp nga xam ne ñoom laa doon dajal fii ñëpp a ngi fi ci làmb ji waaw donc bon fu ne nii ñoom yëpp maa ngi leen di nuyoo leen di delloo njukkal itam ci dox boobu ñu dox waaw. président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi sant yàlla bu baax. ñuy décorer ki nga xamante ne mooy Tombé Sène ban yëg-yëg nga ci am. waaw mais kontaan rek ah Tombé Sène moom bu ñu ko décorer jaxaw war nañu ko décorer euh, kii defe naa ne siin fépp képp fu tëgg làmb ci siin am na ca wàll parce que nag am na lu mu def fii ci làmb quoi te muy fii muy ci Dakar te ba léegi taxul mu bàyyi làmb ba léegi mu ngi ci xale yi di tàggat parce que école de lutte bi nga xam ne maay président bi moom mooy tàggat xale yi donc tey am nañu kontaan bu baax a baax ci Boucar Boucar aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko félicité di ko ñaanal franchement parce que lii aussi namm nañ ko nag ci jaxaw siin franchement waaw merci beaucoup lu leer Vamos, vamos, vamos. il a amené poids lourd de 13 litres de mètre 13 litres 13 piles poids lourd ñun dem naa tëggee na 1 million c'est pas normal parce que kii am naa fay la. joma ji leen 13 litres ndax combat ko éliminé. premier combat la Adama Guèye combat de Fatick non. deuxième combat Abdou Karim Senghor Diatta Diop. Aïcha 13 combat. troisième combat Adama Thiaw. quatrième combat Adama Ngom Birame Mbissine Sène combat kenn fana juga e kon koye fogole ndendi ka tan refuye e sere naala mi ref men le communicateur traditionnel nda ndeysaan um jego progrès subhanallah tayi noon Dakar mon jom no andino yo adressé kono fadiida nga i mbaro ley no poreele ando naye ten ref monsieur le maire Badara kon nem fika kam cox kan alo cinq ans kam cox kan o micro le Cheikh Diagne Adama Gueye o mbane o kenar ka jeg xaq to i Abdoulaye Mbodj Biram Ndiaye Badara a fiya Adama Gueye Bada la fi yappee Moussa Abdou Karim Senghor Diatta kam commune Thiaré wax dëgg ita nga ne moof mene a saggina monsieur le maire yama pi'um a xuup ten fogum kon Lutte ne mbika ten refu ye e eh, xu refna anda ye Boucar o ɓiy ino o ndokoor ino nda koy it so refu Dakar kon kam xaƴ tag rek o affaire dokte a sawdiji be fofaama koy aɓe kama dara joko jala paaxa paax fogole sereer we simna nuun nuun fop dokela Lutte TV Boucar dokela fo jaxaw foga koy maître Badara Ndiaye bugu koy ta ñaaj fo délégation o soɓida in xaaxo fengaan koy rek teer we neta teeroor teer yaakaaraame ngel moom i menan a fiya ngaan koy ref Modou Diong o fo central arena Adrien Senghor ref na Ndakaaru waaye nak fegoam xartes doomu ndees te ref o kiines koy ah, a a ref le communicateur du sud waaye i département ne ndax xeeta Diop a mbogu Seydi a le département de Fatick kam farta gar rek waa kon délégation Badara Ndiaye Aïcha délégation Badara Ndiaye maire de la commune de Thiarandial gi le régisseur de la bourse du Sénégal ah kooku moo dimbal étudiant yi moo tax a

ci bitim ànd ak deuxième ateur ndeysaan Bosé Mamadou Sarr mi nga xamante ni lu baax Sarr ñàkk loxo na ko ca délégation bu mairie bu Thiara Ndial bi ànd ak Pape Diouf mi nga xamante ni mooy président euh, jeunesse sport mu dëkk Fambut moom it nekk conseil ci mairie bi ànd ak Fatou Ndao Ndeye Massika Sène ànd ak Diène Faye ñu ñëw nag fekk si kan góor si xale bu yaru xale bu am bu mairie bi kon nag yaakaar naa ne ku xam Thierno Sylla xam ko ci ngor xam ko ci ngar xam ko ci bëgg sa bopp xam ko ci bëgg sa réew xam ko ci yaru a na kon ba ko yàlla dénkee tey mairie Jaxaaw bi dañ koy ñaan yàlla gudd fan bu ànd ak wér. ànd ak kan nag champion bu mag bi nga xamante ni tey ba gaañu jaaxle ci sunu mbër mi fi nekkoon ci biir muy kan doome seen. bu boobu loolu tey ku fi dàqoon bëre ci trompe ngay roy trompe seen yëngu na li nga xamante ni mooy waa des arènes trompe seen moo ko jëkkëlaal suuf ànd ak melam sunu mag sunu xarit waa des arènes boobu loolu ànd ak Léopold Kaynaak Diouf moom tamit bokk délégation bi ànd ak Mor Diouf président transporteur yi bu boo marché ak nga xamante nii ñoom ñoo nekk ci biir délégation bi ñu xam ne nag ndeysaan ak suñu mbokk mi nga xamante ni moom tamit euh, ànd ak ñoxo bàyyi ak délégation bi ànd ak ginnaaw monsieur le maire ndax monsieur le maire dafa accueillir waaye nag ñu ànd ak champion fii ñu taxaw nii Caritas foofu kuy jëm na bu jëm ju rëy kuy doomu fii kuy yaakaaru Jaxaaw Cartas fegal na waaye tey jii mu dem a ak monsieur le maire Badara Ndiaye taxaw ci ginnaaw garde sécurité ci kanamam ci ginnaaw di ko defaral di ko yàqal te ku mu jàkkaarloo yow Cartas mu ngi nii suñu bi nga xamante ne nii àndoon nañu ak monsieur le maire. waaye nag damay wax ne ku am gan ñeete mbaa du ñee la te man fii ma nekk Abdoulaye Ndour Birame Ndiaye mbokk mu fi ñëw Birame Ndiaye Abdoulaye Ndour te war a ñi toog micro bi la may def mooy tëral la kon euh, dañuy bàyyi bu monsieur le maire yëkkatee kàddu nga toog tar ci gannaaw bi ko dugalee ba noppi ndax xam nga ne gars yi seetaan a bari mais dañuy bàyyi monsieur le maire ngeen baal ma nag man dama waxoon ne vidéo bi ne ku ma ci ba ma jël ma ma ba box sama ba max saa bopp fii nag moom ba léegi naa ci bi mais man dama jël téeméer rek dara ma baaloo ñëpp ndax ab dëkk boo fa ñëwee da nga war a baal nit bi di nuyu nag nga xam ne mooy maire de la commune mooy mooy Thierno Sylla ndax nag saa boo buggee nag sa ngoonal neex ci kenn borom kenn gën a la yëg bu la yëgee rek sa ngoonal mën na faa yàgg te gis naa bu suma xarit bu ñëwee nu mu ko accueillir mais bu loolu weesoo nag eh, maa ngi sama jigéen si moom wax dëgg wax dëgg am na seen bi nag xarit am ndax dañuy dem di kër Abdoulaye Ndour dañuy ku ne ci àdduna mais bu loolu la sax dama jël témoin rek laa jël nag comme affaire bi. doog a ñëw. Aïcha Lagane di door andi. Lagane di door mbër. bokkal sama xarit. ak maam Biram ziar na. Bakhtel may tëgg la am reefal. yàlla yóbbu ma ci. te Badara Ndiaye. résister de fii le maître carrément bi mu nit ku baax. def teraanga nit ku baaxal bi. waa Taarangal bi waa Fatick waa Jaxaw billaay ne ko baax a ngi xamewul ku nekk Réfane xamewul Jaxaw xamewul Taarangal bi xamewul nit ku baax nga jàpp naa la billaay yaa baax yaa ko rek yàlla nag fi nekk hôtel bi bu doyal joxe ki neexul. ay ñoom demuñ rek ñaari baax na. waaw merci beaucoup xam nga nag Toucar euh, bu ma suubalee tuub rek di leen gërëm di leen sant Ablaye xam nga di da nga def sama mbokk waaye nag ah xam nga dafa am ñoo xam ne daf fii tey ndax boo xayma darañ ne nga ne ministre mooy Tigaan Sarr Aliou Ngom toog fay nga xam ne ay xaritam la ñu def liggéey bi waaye nag. da ngay def nga def ci Basiru mi nga xam ne même Basiru moom ay xaritam ñu bokk di liggéey waaye sama jigéen ju baax kii nga xam moom c'est une mère boo xam ne dafa jàpp liggéey bi waaye nag yéemu sax caare jal bi waaye département de Fatick fort na nga fekk fa waaye nag mënu maa dem te waxuma ci Modou Diouf mais Modou Diouf eh, yaakaar naa ne bu ñu dajee fii tey taxawaay la wax ci moom ndax képp kilifa boo xam ne dafa nekk ci làmb ji nekk ci autorité transporteur yi nga xam ne ñoom dafa bàyyi ak ñu leen di gërëm Ablaye Diagne sa xarit mu doon ceetal barke dem ñu nekkoon fa waaye xale yi gën leen a góorgóorlu fi ngeen teg seen foofu la yàlla yàlla def jàmm merci. merci li ñu defee ñooñu bàyyi leen euh, war a mën a seetaan. su ko defee rek ñu yëkkati kàddu ñu après ñu toftal ne xale yi yëpp la ñu ko pour ñu toftal ko ci monsieur le maire. xale Thiam. ala magum nam bi sin seen. ah merci beaucoup Ablaye. Abdou Kader. seen mbokki Fatick mbokki Jaxaaw maa leen di nuyu mbokki Thiaré Diallo. Ablaye fii nga ma joxee kàddu sawar naa fee wax lool muy uti bu sin ko ma Ndofène ëpp ni maa maye koor Diouf ndax nag histoire retiendra. te it le hasard n'existe pas ku dul joxe cër doo am cër nit ku baax nga dëkk jaxaaw ma dëkk jaxaaw nag ndax fii nag laa cosaanoo suma maam tak moo doon ànd ak Buur Sine Mayakor te xam naa ne le section léegi mu jot si bu xam ni lay sant di la gërëm yàq na estaf lool waaye kër boo ci duggee da ngay nuyu kër man nuyu le premier magistrat de la commune de Jaxaaw muy Ceerno si la sama doom sa yaay nekk nit bu baax aji sax la tamit nuyoo bi ma koy teg ci ndey nga jaga mi nekk ci sama wet nit bu baax yal na en bi diis ba nga xam ne da ngay jayax yi te tubaab fakkaar la macha allah yàlla dina ko def yow bu kar nag nga tuddee nit bu baax nit bu yaru nit bu am la ñu koy ñaanal yàlla mooy conseil municipal am bi yàlla leen yàlla na ko jàpp muy monsieur Badara Ndiaye maire de Thiaré Ndiaye di régisseur des Bouches man ku ne xam nga ne aw ma jot chargé de mission la ministère des sports heure bii tey Sorano la ma waroon a fekk waaye koo xamoon noo def nam la def rek a tax Badara Ndiaye nekk ku baax man boo gisee ma ñeme ko ànd ak moom mu jaral lu ne dafa bëgg cosaanam lu mu am Fatick la ko indi caare jal gi boobu mu nekk maire ngeen jël premier drapeau sargal Badara Ndiaye Boucar yam nañ koy def ay at yu bëree bëree bëree bëree bëri di sant di gërëm Adama ñi fi toog yëpp a doomi Baba Ngom bii di tudd yal na sa loxo bi sedd ak jàmm sa papa sama xarit la sa baax la yàgg ci làmb bi ma yàgg ak moom ci làmb bi jërë ngeen jëf bi ñuy ñu yor pili communication Badara Ndiaye xale yi lool ci Badara Ndiaye yal na leen yàlla fayal boppam maas le chef de cabinet maa ngi teg yooyu sa loxo am day fay premier argent au maire. waaw dañuy jox monsieur le maire Thierno Sylla mu dalal monsieur le maire Badara Ndiaye bu ko defee Badara Ndiaye nag sëñ kat. salaamaaleykum. King down na Apin Sara. Vite fait et bien fait. Tout droit, Njom Sampusa. Biram di sincere.

arbitre bi sifflé na dox ci diggante Géant Bargny ndeysaan ci diggante Géant Bargny ak Jaaka bu Mbuur mbokk yi ñu ngi fii ci quart de finale yi mu nekk combat ak Géant Bargny Ibrahima gaay sa kaw lañ jëm romb nañ jaata Géant jàppante nañu lan mooy xaw Géant fàq na jaata relance ba jaata bañ na Géant ndeysaan jaata bu mbuur ak Géant Bargny Géant mën na ko la ilaha illallah Géant Bargny daan na ko daan na jaata bu mbuur jël bu rëy waay Géant waay ndeysaan ndeysaan tergandalu na ñaari xale yi la ilaha illallah lu xew dem na dox ci diggante Birame Mbissine Sène ak Moustapha Faye Diakhao ndeysaan Birame Mbissine moom ndeysaan moo la woon ginnaaw wala Birame Mbissine moo la féete tàmmoñ Birame Mbissine Sène ndeysaan waaye lamb ja ñëpp ngay daanu waa bii lamb mooy lan <laughs> ay waa ji la làmb daal làmb la li am ci làmb yëg-yëg la ndeysaan ndeysaan dox ci diggante Moustapha Faye Dioral ak Birame Mbissine Sène Moustapha Faye Dioral moo la féetee càmmoñ Birame Mbissine moo la féetee ndijoor Moustapha Faye signalé na Moustapha Faye si moom moo may jëndal Eferal Gant Moustapha Faye Diorol Birame Mbissine Sène daw nañ jàppante Birame Mbissine Moustapha Faye Birame Mbissine Moustapha Faye Moustapha Faye Birame Mbissine ñoo ko ca daw na jëli ko Birame Mbissine Moustapha Faye Dior ak Birame Mbissine Moustapha Faye Dior ak Birame waa kii di di nga wut ay yat door ba muy bëgg a dee daw na jëli Birame Birame Mbissine Moustapha Faye ñaari oom arbitre bi àtte na kaay leen waat ci géew ndeysaan lamb ji ñëppay daan ndeysaan Moustapha Faye Diorol Biram Mbissine Sène sifla waat na Moustapha Faye ak Birame Mbissine Sène ndaysaan mbokk ñoom ñaare ngi noonu Birame Mbissine ak Moustapha Faye ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi lan moo xew Birame Mbissine Sène ak Moustapha Moustapha Faye Dioral Birame Mbissine Sène ndeysaan Moustapha Faye Dioral ak Birame Mbissine Sène ñu ngi ci combat bi ba tey fan lay mujj Birame Mbissine Sène ak Moustapha Faye Dioral ndeysaan ngi noonu ndeysaan Moustapha Faye Dioral ak Birame Mbissine Sène mbokk yi ñu ngi noonu ci ak Moustapha Faye ndeysaan Birame Mbissine moo la woon la ci wàllu lamb moom Birame Mbissine eh, Garga 2 Mama Lamine <laughs> mbokk Garga 2 Mama Lamine lamb ju nar a garaaw suba ci dimanche bi le 22 ndeysaan lamb ju nar a diggante Parcelles ak Diamaguène daw na jëli ko na ko dox ci diggante Moustapha Faye Dioral ak Birame Mbissine Sène Moustapha Faye Dioral ak Birame Mbissine Sène ay saan combat bi mënul yomb ndeysaan mi ngi noonu gàtt na daw na jëli ko Birame Mbissine na ko ndombo daan na ko gàtt ab na daan na daan na ko Birame daan na ndeysaan daan naan la macha allah daan na Birame Mbissine qualifié na demi-finale ndaysaan arbitre bi sifflé na demi-finale Fara Njambe ak Ablaye Demb Fissel ndaysaan Fara moo la féetee ndijoor Ablaye Demb moo la féetee càmmoñ mbokk ñu ngi fii ci Jaxaaw Siin ndaysaan Ablaye Demb ak Fara fu ñu mujj ñoom ñaar ci demi-finale bi poids lourd ñii poids léger ñaari demi-finale ngi noonu

Ablaye Deme ak Fara combat bi fu muy mujj final bi am xeeñ final bi Ablaye Deme ak Fara est-ce que Birame Mbissine Sène am géant ragal naa ko de ndaysaan Fara ak Ablaye Dem Fara Ablaye Dem Fara Ablaye Dem Fara Ablaye Dem gàtt na ko Fara Ablaye Dem Fara Ablaye Deme Fara Ablaye ci bëre Fara nag ndeysaan Fara Ablaye Dem Fara Ablaye Dem ñu ngi ci combat bi ba tey Fara Ablaye Dem Fara daw na jëli ko Ablaye bañ na Para Ablaye Deme Para Ablaye Deme Fara daw na Ablaye daw jàpp na Ablaye Fara combat baa ngay bëgg a yàgg ndeysaan Ablaye Deme Fara Ablaye Deme Fara Ablaye Deme Fara Ablaye Deme Fara arbitre bi àtte na fara day dem ci arbitre bi waaw moo neex bi mooy médecin bi arbitre bi mooy faj mbër bi arbitre faj na ko ndeysaan bi suble waa na arbitre bi suble waa na dox Fara ak Ablaye Deme Ablaye moo la féete càmmoñ ndeysaan Fara ak Ablaye dem ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu Fara Ablaye dem ndeysaan laay dem Cissé ak Fara Ndiangat waaye combat bi dina yàgg ndax ku daan dem final lay te final bi mënul yomb fara laay dem daw na jëli fara fara bañ da koo tëru mu rëpp mu jógaat fara fara Ablaay fara Ablaay dem Fara Ablaye Fara wal ndeysaan Fara ak Ablaye Fara Fara jàpp na ko ndeysaan dañuy bëre ñoom Fara Ablaye Deme ay dem ak fara fara wàcc na ba day bañ laay daw fara laay dem ndeysaan fara laay dem laay na jëli a lan moo nar a wara lay dem lu ndaysaan ba tey ñu ngi ci combat bi dox ci diggante Fara ak Ablaye ndaysaan Ablaye Ndiaye ak Fara jàpp Ablaye Ndiaye Cissé ak Fara Diambe Ablaye am na avertissement daw na dox ci kaw Fara daw na jëli ko Ablaye daw na Faro tëru na ko dañoo bëgg a bëre dañoo bëgg a bëre daw na tëru ko wàcc nañ suuf jugaat ndeysaan noonu ndeysaan combat bi yàgg na laa ilaaha illallah ko ndomba bañ fara bañ na jaxabal na ko bañ daan na ko laa ilaaha illallah eh. Biram Mbissine moo la féete ndijoor Géant Bargny moo la féete càmmoñ demi-finale mbokk yi Birame Mbissine bu Bargny Birame Mbissine Géant Birame Mbissine daw na jëli ko laa ilaaha illallaah jël na ko Géant la du jeex Géant jël na ko arbitre bi nu mu def nii arbitre lu muy xaw arbitre bi nu mu def laa ilaaha illallaah Géant bu bari ñu daan na laay ça va ça va alhamdulilah dégguma da ngay waaj a dem waaw dama waaj a dem na yow waaw final waaw may ma tuuti kaay Géant nuyu naa la. fay naa la. ci loo ne. man bëre rek. bëre rek laa fi andi. daa mel ni da ngaa bëgg a jël si liñ. waaw dama bëgg a ñëw jël affaire dem quoi. loolu li mu liggéey moo tax quoi liggéey moo metti. xam nga entraînement toujours na beneen liggéey bu dul si làmb da ngay def suñu fayda quoi. loolu moo xaar ñu may bëral samay morom samay mag lañ sax mën naa wax kon mënuma xaar quoi noonu la demee ah waaw maa ngi finale sax yi daan incha allah si kàttanu yàlla waaw. monument ogar meke fiya final nga musa warlo jaxaw ah gidma roga fa rek ina roga jam ndam final fe um jangin a an num koy am gan nekk rek xale ko wa jega iya waga njom nda mi fop na waag njom i a kon koy bon sens rek i i ok merci Jimbor ah sama mën a merge mu baaxul Jimbor waaw non non baaxul Jimbor moom wax dafa yàlla moom non baaxul Jimbor moom mais xam nga rek tey nga def merge bu ba nga def nga final poids léger waaw gis nga rek yàlla rek waaw léegi ndax xam nga ki war a final bu waaw waaw xam naa ma ni ma ñaan bu baax non non mosuma bëre ak moom sama CAB moom mos a bëre ak moom Ousseynou waaw waaw mais gars yi ñu ngi rafet Ousseynou la wala sel la ah gars yi luñ wax rek waaw Ousseynou ak Assane waaw la wala sel la Ousseynou ak Assane lépp ah. waaw waaw boo jëlee waaw bëre si waaw ñun ñaar yëpp mais gars yi dañu ne Ousseynou mu ngi ci ginnaaw Assane mu ngi ci ginnaaw Ousseynou mu ngi ci ginnaaw Ousseynou mu ngi fi Assane mu ngi fi ah. waaw war na sa di la la yow baax na ala mo sa jaajëf jaajëf ok jaajëf jaajëf ah Boucar maa lay féliciter tey ñu ñëw fii ci Jaxaw Siin fan si club Boucar Ndour organiser li traditionnel mu mel ni gis nañ fi ay autorités yu bare bare bari ñëw ba ci parrain bi maître euh, Alioune Badara sa diggante moom tey benn yëg-yëg nga am. waaw ji li kontaan rek kontaan di masa wu ñëpp coono rawatina yow suma waa ji vraiment da nga ñàkk ki ñaan rek parce que tey bi yow kese yaa fi nekk média mais tey day déplacé wu nga ñëw. maanaam li ma war rek ne euh, rek nit lu mu am rek da nga ko koy yéene parce que yàlla moom moom lépp yàlla moo yor lépp Alioune Badara Ndiaye rek koy sant di ko gërëm parce que Alioune Badara Ndiaye nekkul maire Thiaré Ndiaye rek yem si yem si Alioune mooy premier vice président OSTA organisation des des sports africains euh, loolu moo koy jiite. boo xam ne loolu dama tàmbal Alioune Badara Ndiaye moo nekk le résident des bourses te étudiants Sénégal yëpp bourses nekk nekk maire de Thiaré Ndiaye gi waaye nekk ku social ku sociable am alalam di ko bokk ak nit ñi boobu amul ay ndombol tànk lii nag du parrainage mais sargal la man dama leen a ku fi dëkk li ñu naan dëkk si dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën boo koy defar fan si gën a Boubacar TV dina la sargal ñun nag fii lañ dëkk fii lañ am fii lañ tiitaroo tey buñ demoon am rek ñëw sax lu ñu am fii lañ koy andiwaat moo tax ñu organiser lii au bénéfice de la population Jaxaaw Waas rek tey gis nga lamb ji ni mel yi lamb la ñuy dund lamb la am kontaan di sant sama waa fans club parce que aw ma seen fay waaye rek aw ma seen fay ji ni ma la ko waxee rek ñooñu aw ma lu ma leen fayee. yombul te gis naa ci ñoo xam ne sax ñoo la mag wala ñi ci ëpp ñoo la mag nekk ci fans club Boucar Ndour vraiment du lu yomb. loolu aw seen fay ku si mel président Aly Ngom Sène sama grand Sémou Diouf ñoom Boucar Tupaan Issa Faye su ma limee du ma matal mais rek di leen sant di leen gërëm parce que seen yitte lañ bàyyi seen i njaboot seen ñooñu mooy dara lu dul woon leen yëg-yëg ak respect ak cër ëppale wu leen dara. li nga am ni lan moo la ko may. <laughs> damay ne rek peut-être yar di sant sama papa di sant sama yaay di sant sama maam bu góor góor gis mas ga seen di ko ñaanal gudd fan ak wér. ji nii yar boo ko amee tey riche man aw ma dara de aw ma dara mais maa ngi sant yàlla à travers nit ñi ñu ñi ñu may defal lépp lu ma bëgg nit ñi ma koy defaral kon man maa ngi sant yàlla. bu jëw nag sama baat bee réer mais maa ngi lay sant di la gërëm di sant presse bi fi teew yëpp ñi ñëwul tam rek maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm si Sénégal ba jili sama xol dafa sedd ba mun ma di gërëm Thierno Sylla tam le maire de Diakhou Sine suma waay la heure ma ko woowee daf may jël te bu ko neexoon tam ne autorité la mais maa leen di sant di ñaanal Sénégal yëpp di naan nag ministre des sports Matar Ba yaa de nag moo ne sargal fu Matar Ba kër papa mu ngi fii kër yaa mu nga à peu près 3 kilomètres kon Matar Ba fii dëkk dëkkul Fatick ber sargal bi si la des bu nanguwee bu nanguwee ñu tegal ko 2 millions wala 3 millions 2 jours après la tabaski fii si Jaxaaw si loolu si Matar Ba la des boo des na si moom si moom la des. arbitre bi sifflé na final baa ngi noonu monument Ndianda ak Assane Assane moo féetee ginnaaw ngemboo ngemb lu monument Ndianda moo la féetee càmmoñ ndeysaan ñoom ñaari ñu ngi noonu ci final bi ñaari xale yi ku ci nekk def na li mu war a def ba finaalu ku ne bëre na waaye Assane moom nax naa gaa yi nax gaa yi gaa yi ba finaalu Assane ñëw ba bëre final sotteekuwul benn butéel <laughs> mooy borom ngeen lu verte le léeg ko daal lax nga gaa yi ba finaalu xaw ma ne fu mujj. ak monument Ndiatta daw na jëli ko plaqué nañ daan nañ ko monument na Assane monument na Assane monument na ko arbitre bi na mbokk yi final noonu dox ci diggante Ablaye Ndong ndeysaan ak jaata ak Géant Bargny Ablaye Ndong daw na Géant jëli mooy njool mi ndeysaan mbokk yi Géant ak Ablaye final baa ngi noonu ndeysaan fii ndeysaan da koy biij doole doxul jàmm doole doxul jàmm am doole Géant Géant dafa am doole mu ngi koy biij arbitre arbitre ah. ndeysaan arbitre nag du ñu toog takk na ko daan na ko daan na ko Géant Bargny daan na ko